règle yi nga xam ne moom lañu tënk ci tawxiit ak li nga xam ne moom mooy bokkaale maanaam kañ la nit di nekk mu muwaxid ak tamit bokkaalekat yi lan mooy daabitu bokkaale euh, di téere boo xam ne téere bu barkeel la daanaka boroom xam-xam ko faram fàcc def ci ay shuruux bari na trop Cheikh na Salih Sindi nee na lu ci xam ne daanaka ëpp na euh, lu mat euh, juróom-ñett fukk comme cheikh bi lu ñu ko xamee moom ay téeram ci bari ci tawxid la te téeram du faral di gudd du faral di yaatu ay téere yu ndaw la waaye xam-xam bi day bëri téere yi gàtt la xam-xam bi day bari mu gën a nag ñu xamee ko ci lu muy gën a xuus ba su ne moom mooy ci tawxid ci ay mboole yu téeram dañ mel qaadil arbaa ci la kitaabu tawxid al ak yeneen kashfu shubahat nawaqidul islaam bëri na lu néew la bind ci fiq lu néew lu néew lu ci mel ni shurutu salaa wa arkaanuha waajibatuha ak lu ci mel ni adabul mashi ila sola lu weesu loolu dul loolu mu nga fekk tam leneen ci fiq ci durooru sani ak yu mel noonu ci لأنه بنفق ندخل كذي الدروس الثانية نعم كم شيخ رحمه الله تيري بي مونكا تامبل بسم الله الرحمن الرحيم لي موي دخل ينو بروم خامي جي بري داني تامبل سين تيري بسم الله الرحمن الرحيم الحافظ ابن حجر رحمه الله من وقد استقر عمل الائمه المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسمله بروم خامي ادو ناني لي اوبي سين تيري ليغا خامتاني موم albasmala di bismillahi rahman rahim comme loolu boo xoolee ñu njëkk a bind téere ñu ci mel imam malik abdurazaq ci almusannaf ibnu abi shayba dañoo tàmbale seen téere bismillahi rahman rahim ak ku ci mel imam al buxaari comme moom day roy ci loolu bismillah mooy maa ngi tàmbali maa ngi bind lii di ci anam bi nga xam ne maa ngi dimbali koo yàlla borom bi subhanahu wa taala allahu lafzul jalaala la allahu mooy ismullahi al azam mboolem turu yàlla yi ci allah lay delu turu yalla boo tudd rek dang koy delo ci allah nan ar rahman min asmaillah Rahman turu yalla la ar-rahim min asmaillah Rahim turu yalla la al-latif min asmaillah al-latif turu yalla la bok ila akhirih. comme bolem turu yalla yi ci bi lay ar-rahman ak ar-rahim bari na eh, ñaari wax ci borom xam-xam waye lu gëna wër ibnul Qayyim. dafa ar rahman lu mi firi moy yalla dafa melo melokanu yermande moy yalla dafa bok ci melokanam. yërmande loolu melokaanu yàlla la arrahman arrahim nag mooy yërmande bu muy wàccee ci jaam yi moom dafa différencier arrahman ak arrahim mooy arrahman lu yàlla meloo la dafa melo yër melokaanu yërmande waaye arrahim nag mooy yërmande bi nga xam ne moom lay wàccee ci ci jaam yi te loolu noonu euh, boobu définition boobu Cheikhuna Salih Sindi nee na euh, bu dëgër la euh, mu moom cheikh bi أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت كم شيخ دا فا تامبالي بند بي تي موي نيان من أسأل الله الكريم ماغي نيان يالا بو بي ماغي نيان يالا بو بي رب العرش العظيم بروم عرش بو مغبا عرش موي لو گنا مغ تي مندا rabbul arshil azim borom bi loolu la wax muy ci alquran yaakaar na mooy borom arash bu màgg bi moom borom bi subhanahu wa moo tax arash dañ ko tudd ci alquran idaafa ko ne moo gën a màgg def ci alif laam moo tax yenn borom xam ne arash moo mooy moo gën ci lu yàlla sàkk am na ñu wax lool am ñu ne arash moo gën ci lu yàlla sàkk am moo gën ci lu naam uh, arash mooy borom bi subhanahu wa taala fa muy yemoo arash mooy borom bi subhanahu wa taala fa muy fa ca kawam fa muy ca kawam il nga dolli ci ca kawam fa muy ca kawam mun an yatawallaaka fi dunia wal maa ngi ñaan yàlla bu tedd bi borom arash bu màgg bi mu daal di féetewoo ak yow ci àdduna ak وأن يجعلك مباركا أينما كنت مدف لك باركيل فيب فو منتني وأن يجعلك مدف ممن إذا أعطي شكر مدف بولا التي نيو خمني آه، بلن جخي رجي سنت وإذا بطولي صبر بلن نتو نيمون وإذا أزنب استغفر بلن دفع بكان يجغلو يالله mu ne fa inna haulaai thalatha unwaanu saada ñett yi de ci la buntub texe nekk ñett ku yàlla jox nga sant la in shakartum la azidannakum boo sante ma dolli leen butuliya sabar buñ ko nattoo mu muñ loolu day bokk ci al iman bil qadr day bokk gëm li nga xam ne moom mooy ndogal wa ida aznaba staghfar bu defee bakkaar mu jéggalu yàlla naam su defee bàkkaar mu jegalu yalla fa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara borom subhanahu wa taala waxaat ci suurat ci suuratu nisa suma juumul mu ne ñi nga xamanteni bu ñu defee bàkkaar tuub ci saasi summa yatuubuna min qarib tuub ci saasi ñu borom subhanahu wa taala dina len dina len jegal naam mu ne ñett yi ci la buntub texe nekk naam bu la yàlla joxee nga sant bu la nattoo nga muñ boo defee bakkaar jéggalu yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne i'lam arshadaka allahu li taatihi xamal yàlla na la yàlla jubal wala tette ci di ko topp comme boo xoolee cheikh bi rahimahullah fii yëpp dafa ñaanal ka muy jàngal dafa ñaanal ka muy jàngal boo xoolee fa mu tàmbale ba fii nii ñu yem dafa ñaanal ka muy jàngal loolu ñaar moo ci nekk benn mooy ki ngay jàngal soo ko ñaanalee day tax dalay lay gën a bëgg képp koo xam ne da lay ñaanal da koy bëgg boo xamee ni diw mi dalay ñaanal laa chaque ni da koy bëgg te nongo bi ngay ñaanal soo ko ñaanalee da lay sopp te bu la soppee rek day gën a sawar ci déglu la day gën a sawar ci déglu la ñaareel mooy amaana ndongo bi balaa muy jàng li wala balaa muy liir li dafa bari woon ay bàkkaar mu ñaanal ko yàlla ndax yàlla daal di koy jéggal bàkkaaram mu daal di dugg ci ci anam bu bees boo xam ne du am bàkkaar lool day tax yàlla day barkeel xam-xam bi nga xam ni موم لاي واجا جانغ ولا موم لاي واجا لير من اعلم اشرك الله لطاعته من خمل يلا لا يلا تتي شي nga top ko shabi burna ci ay minnam da koy tambale i'lam usul الثلاثه القواعد الاربعه بي نواقض الاسلام كشف الشبهات يبري دنا خمل لولو تخ مكاي واخ دا لو بغا خمل لي خم خم لا دو اي فو lii nga dugg nii lii ngay gëstu nii wala lii ngay liir nii xamal ni lii ab xam-xam la mu ne anna xanifiya millata ibrahima mu ne xanifiya moom mooy diine maam ibrahim xanifiya moom mooy tënku ci tawxid du mooy bokkaale loolu mooy xanifiya jublu ci tawxid du mooy bokkaale loolay xanifiya ci gàttal loolu millata ibrahim mooy diine maam ibrahim ba sax diine mbooleem yonent diine mbooleem yonent moo ñu islaam ñaar la am islaam am am islaam xaas islaam boo xam ne bu général la am islaam boo xam ne bu tënku la islaam bu général mooy islaam boo xam ne mooy diine mboolem yonente yi woote ci tawxid xeex bokkaale loolu mooy islam am bu général islaam xaas mooy islam bi nga xam ne mooy sharia yonente bi sallallahu alayhi mooy sharia bi xam ne ñun xeetu Muhammad ci lañ tënku mu ne ann al xanifiya mooy diine mooy lan mu ngi la koy leeral an taabuda allaha waxdahu muxlisan lahu diin mooy nga jaamu yàlla moom dong sellal ko diine ji moy moytu lépp luy bokkaale su bokkaale duggee rek mooy sellatul mu ne wa bidalika amara allahu jamia annaasi wa xalaqahum laha ci loolu la yàlla bind mboolem nit ñi te moo tax mu sàkk leen comme tax yàlla sàkk la moom mooy nga wéetal ko moom dong bañ ko bokkaale ak dara mu ne wa xalaqahum laha te loolu tax mu sàkk leen lan mooy bi dafa mel ni cheikh dañ li nga wax ni ana sa dalil bu ne kama qaala taala comme li ko yàlla waxe wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduun bindu ma nit ak jinne lu dul ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma lii boo tax yàlla bindu nit ak jinne aay bi radd la ci suufiya yi nga xam ne dañuy wax ni muhammad moo tax yàlla bind ñu sallallahu alayhi wa sallam comme aaya bi rodd na ko comme yàlla leeral la moo tax ñu bind ñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduun binduma nit ak jinne lu dul lan luy xikma bi luy illa bi ñu jaamuma laam boobu laamu taalil la waaw comme lii rodd na suufi yi nga xam ne dañuy wax ni tasaari seeni téere ne muhammad moo tax yàlla bind ñu loolu warul loolu nekkul lu wër ndax Muhammad dañ daan jaamu yàlla balaa muy ñëw yàlla fa digal li ñu ñuy jaamu yàlla balaa Muhammad di ñëw mooy xeetu Nuux xeetu Musa xeetu Isa xeetu mboolem yonent yu jiitu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tayib illaa li yacbuduun wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa li yacbuduun bind ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma ñu bari ci uh, taabiun nañ ko firee illaa li yuwaxiduun lu dul ñu weetal ma ku ci mel ne Ikrima dañ koy tokkal dañ koy toxal tamit eh, ci Mujahid mooy lu dul ñu weetal ma léeg-la ñu toxal ko tafsir boobu ci Ibnu Abbas waaye warul ci Ibnu Abbas warul ci Ibnu Abbas comme ci ay ndongom war na ku ci mel ni Mujahid ak ñu mel noonu Ikrima yaakaar naa comme ñu yem fi incha allah ba darsi bii di ñëw lii benn muqaddima la woon duggagul ci règle yi wallahu aalam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina